jërëngën jëf yeen ñi siiwul ko li koy waxé rek ci TV ak Andrati Lamba ko ah kon li ñaari seeni tay ñoo dugg si biir pigin sét si benn champion bu nga xamni moy barista fu mu nekk ni dari goxi lamb tay bo xolé koñ bi dafa fess del del del del xalé yi génn mag ñi génn ndaw ñi génn ñëpp génn lu ko waral moy barista. wa koñ bi ñoy kaas nenañ sa way dafa waram combat far force barki demo Ndiaye nak dañoo teud ba goudi en grande surprise ñu gis ay vidéo yi circulé diggante Batista ak Caatu Waalo di bëre si gratuite waa ñuy bëre si gratuite te ñu leen boole ñu fay leen ñu dóor na ñu namu nañ làmb namu làmb nga xam ne ñoom ñu ngi dem bay bëre gratuite si ay tefesu géej dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu xuus si waxtaan bi Batista maa ngi lay ziar. waaw delloo ziar di la ziar di ziar waa àdduna waaw di ziar waa Pikine gi ma dëkk juddoo fi yaroo fi màggee fi xam nga di ziar waa Kaolack waaw du amadul Kaolack sant ñoom bu baax Sedex Meng borom États-Unis jaagatu pëne yi ay mbàkk gay Faxe Moussa Gueye waaw sama gaayan ku ma sonal waaw di sant waa Dakar go bu baax ñoom demoon de Papis Neller Fallou Amical Sega Nokia Matar sama sama mag xam nga di ziar waa Daagu daan bu baax waaw fi mooy suñu équipe la ñun fii lañ juddoo ay doomu Daagu daan lañ ak Daaru waaw ak Daaru ak jamono waaw man trois trois ASC ñoo ma seeg quoi ak ndam xam nga ak waa naataange bu baax maa leen ziar bu baax di ziar waa àdduna di leen masaw coono bi nii mu demee gars yi xuus ñëw quoi waaw yee mooy loolu Batista dañuy ñëw si tey Batista ñaar combat la bari wa man neuf combat la am neuf victoire. neuf combat. neuf victoire wa di wax yalla yàlla xeb doli quoi. neuf combat neuf victoire. wa loolu neex yalla de nekkul suñu mën-mën de. dañu bëgg ñu limal ñu cinq personnes kasse yu Batista daan cinq personnes rek si yi nga mujjee bari wa Boy Sadio. Fils de Max. etoile bu jorof ak Sergo bu Jof soko nek nekk ak Baye Mandione Junior. moy cinq combat yi nga mujjee bëri. waaw. ñu ñëw si carrière Boy Batista gis nañ xale bu musaan bëre 9 combats 9 victoires combat da koy yomb gis ne Batista ba mu bëree ba léegi nga ne combat du yaaxoo si man xam nga man sama ménagère mbay jàll la na ma fi combat Pape Sarr. ñoom ma taxaw si replace 7 ko xoolal ma lu nooy lamb amul lu nooy jamono juñ toll yaa ngi dégg. mbër koo amul la xool amul nooy. barki alxuraan daam ñoo xamante ne li may wax rek ñoo xamante ne comme lamb waaw ñi ñoo si ñëw pour xare ñëw pour rayante man si genre boobu laa bokk quoi man sama lamb moom du yomb. yow sa gis-gis la moo tax gars yi di la moytu li ngay wàcc si li simple bi la wala yow arme bi da ngay jàpp di dóore wala lan la. waaw loolu tamit si la bokk xam nga waaw ñun meññeeguñ ñun mataguñ ñun mënuñu bëre mënuñu xeex mënuñu dara xam nga ñun suñu mënoon duñ bokk suñu écurie bokk suñu mënoon dañuy yor équipe individuelle ñun kese ñu demal suñu bopp ñàkk mën moo tax ñu dem xam sa cosaan école loolu comme ku su mel ne ñoom moo kurs ñoom lëppi ñoom vee ñoom alaaj sëy xam nga seex ñu gaa yëpp ñuy ñuy tete quoi dañuy wax defal ne defal ni kon ñun mënuñu làmb kenn mënul kenn lamb kenn mënul biir la day xëy rek wasin mais dégg naa lamb kenn mënul kenn mais mbër bu commencé seetlu naa mbër bu commencé wàcc si lig simple di di di jongante di jël ay trophée seetlu naa gars l lay moytu te gis nañ yow lig simple bi su ma juumul bañ tabasee ba léegi jëlagum ma kat waaw léegi yow mbër yi bu ñu demee ba bay moytu mbër yi bëre kon ñoom nañ bàyyi bëre moo tax ma ne mbër moo yombadul jamono jii ma ne la cool dina bëri ni nii nii trop mais d'ici peu de temps waaw de yooyu ñooy des te champion yooyu des yooyu ñun si la ñu bokk ma dëkk si goxu làmb dëkk Pikine boo nee làmb da nga naan Pikine xam nga fii bëri ay ndaanaan bëri ay champion yu fi nekk waaw man dama war a reyante xare ba dee te damay xare barki alxuraan non jamono ji moom combat du yomb de yi ñoo xaw a ragal waaw yow mbeur kay mbeur mbeur bu demé bay ragal mbërum mbërëm nax bëre na bàyyi fi mbeur so meune bëre am doole di xex bayil bàyyil do do bëre barki yalla ñu nay dog ba dañuy décorager lamb kenn duñ jël barki demo ndjay la mo indi la mo indi sa sa sa bëre 2 heures matin xam 1 heure matin suma ma jumul ñu gis la nga dee bëre ci tefes gi sa digënté ak caatu waalo lan la da nga namu bëre wala lan la wa dañu nekkon ci ben live TikTok quoi wa ñëkkon ci live bi di waxtaan non gaay wo ma dama duggal ci live ma dugg fekk chat mi ngi fa gaay yi di tëkkante non quoi waaw mu ne Barisa dama ko daanoon maa ko mën yaa ngi dégg ne ko Fall Barisa man man nee ko man mbër reebama a daan xamul lol le mu ne mu ne dara daanoon moom mo la man gaay duñ xaf lañ doon daan mais ba Barisa dëgg ñëwee gars yi xam nañ mbeur bi la la wax way chat wala boko tegon tek ma sa waay caat kenn woo xool. moo tax mané ko légui garaawlu ben ngén ne dafay tek 40000 pour ñu bëré mo tax bu tek 40 tegal 100000 ma taal sama moto ñew xam nga bu teg 100 non non mu ne mu ne boo doon bëggee dama leen may ku nekk 20000 ngeen jënd essence ñew waaw sama connexion bi di xawa daw quoi. may jënd ligne bi après sama papa mi ngi doon déglu affaire bi en direct mu woo ma ne ma sa condition bàyyi daw gars yi da nga yaakaar daw ma ne ko daw ma ne ko bàyyi ma may leen ko gratuit ma ma dem ba ko ñoom umi si umi si rakku Tyson la. am naa umi si ay ñoom mari xam nga ñoom papa sama maman yi nekk sama chérie bi ma taal ko dem ba foofu dugg si live bi ma ne ko léegi waaye doon teg 40 000 kaa ma defal loxo gratuit man sama sama maalu mboro barki alxuraan chaque jour ñaari ngeen ma ñu ngi si léegi nga léegi nga may ko gratuit nga demal Maliou ma fekk man maa jóge Bigéen ñëw ba may la gratuit yow buñ buñ soxla xaalis ñu dem maag moom ñu sëgg mu mu jóg sàqi ni yow ngeen ma sëgg ngeen sàqi mu sàqi nga man naan maa yëpp sama baaraam ak fii amul baaraam lamb yaa ku moo gën a metti ay ban gaay yow ku nag boo jëlee gu nooy si baaraam bërek moom dañuy waxtan comme ko dem nga na ba xëy maye ci mbedd yi gratuit est ce que ñaar du ñu tëgg comme que yow mom moom amul adversaire yow amul adversaire est ce que du ñu tëgg ligue faraw ni ñu ngi tëgg man maay dégué promoteur amna ñaar promoteur yu may wo barki dem ak tay barki dem ak tay waaw mais ben promoteur bi daa bëgg sama combat Thiatou Walo keneen ki bëgg sama combat Kaw Cissé promoteur léegi yow Thiatou Walo ou Kaw Cissé tay ban mo la si nga xamni mo moom la gënal waaye man bu saf sàpp nga am ban mo la gënal man ko ma tin ma timbax ma dem bax lan ko nga Thiatou Walo neen da la dankay comme ko yéen ñaar dam ngeen geej leral ko foofu lerul kon école la ñu ko may ci arène bi ku ñoko ko jubal la ñuy bëre man nekkuma fi pour ay kaw ak ay ay ay chat affaire yoonu ku ñew dañu bëre nga mo mais tey fu mu promoteur waxul ben mbër rasogum na no jamono ji man chat kessa lañ ma waxagum ak kaw ko wax yeah mais chat da xorna fu tolni kaw da xorna ño bokk ménager kay sa ménager mo ñu da ngeen doon tekkande bo doon bëggee ñu tëgg ko ah yéen bokk ménager ño bokk ménager ku la yor yow guddiñ tolni toll mo may resa yi Abdoulahat mo la yor mo yor waaw fu mu toll bëgg na tëgg ya ñaar sen combat pourquoi ba ñu do ci combat yi grand combat la ko bëgg sax. grand combat la ko bëgg waaw. neex de. waaye yow fii dara du fi yombee fii dara du fi nooyee fii lu nooy moo jeex si làmb li ma la wax rek daa mbër yoo xam ne dañuy ñëw si làmb xarañ ñu xam ne ñii ay jàmbaar lañ jaar si rang bi man si rang bi laay jaar man kenn ma xaalal yoon fàll kenn du ma jox ay paa may noogatu. dañuy ñëw si carrière saa ñu gis Barissa da nga jékki-jékki aj lig frappe bi dugg si lig simple bi. dem foofu di jël lu waral nga aj fii daw dakaar dem dem si àll bi nekk xale di di si àll bi di jël foofu. man lutte simple laa njëkkee man bu ma amee benn combat maa ma bëri maa ngi bëri mbabat jamono yooyu mënu ma jël saako ceeb ma dañ maa suul fu ne daan nañ ma fu ne barki alxuraan dañ maa daana daana daan ba looloo ma def ba di sax bi ma doon nii tey waaw mooy bëre arène di demaale si mbabat bi yàlla di ma suturaal mais mbabat mooy tax nga doon mbër dëgg waaw léegi daan yooyu noonu moo ma defar nii ba ñëpp buñ ne ba di amana suma togon toogoon yaakaar ko xam nga igri igri mo nek lo xamantene so fa nekke bo len contact da nga xam beure ñep waaw mën nga dem ba nit boo leen téye nga xam fi ngay koy ba do la daan keneen ak keneen xam nga bu yagge yow beure ñoñu da nga koy maîtriser léegi imagine la nga dem sa bobat dajja fak 30 personnes xamoo kenn lu muy beure nga ñew sa xam-xam boobu ak sa doole bob say ay goor di ut comme yow nga ñew ñaaxal na ba jël ko kokku ndaanaan la waaw ñun dañu nek dañu bok ci ndaanaanu làmb li ma la wax rek jamono yii ni ni dina dina dina dina feeñ ñu naan diw diw diw diw diw ñooy mbëri mais si kanam tuuti ñu nii waroo bi dugg si lig frappe bi comme que waa lig frappe bi nanguwul la jël te problème di jël problème mu lig frappe da koy jafe. waaye man may mbër man damaa tal ay bàyyi lis bàyyi wu salaamaaleykum ku bëgg ñu bëree ku bëggul mu bàyyi damay man damay ay lu neex ay gaay de dañuy daw ay góor lañ man damay dem si góor yàlla reyante barki alxuraan waaw waaw waaw fa laay fa laay profité waale dama gis Weuz jambar ñu koy utal adversaire amul adversaire yeen ñaar da ngeen seen bëkkante si lig simple yi jambar mësu ñu mbëkkante man combat bobu la gënon bëgg sax mais Weuz jambar combat la comme que moom neen rek outal adversaire yoy outal adversaire yeen ñaar combat ma dafa dafa dafa dafa du yomb nga taxaw na dañ may utal adversaire aw adversaire da ngay taxaw plateau nga leen wotal leen mbeur bu bëgg wa dama jël mu xol nak appel dina ñëw waaye Weuz su ko bëggoon moom ñaari mom ñaari combat la tegle tegle na quatre défaite ñaar victoire la tegle ñun ñu tok ci dynamique de victoire daa waroon ñëw ñu xare suñu biir. ba mu tegle quatre défaites. Kogna de la ñëwaan na. daan de la daan commencé di ko daan. non avant avant moo daan Maguette Seck laax daan Maguette Seck ak ndigal. déedéet ba mu jugee ba mu kat da ngaa ñëw daan Kogna santaa ñi daan ko santagne nga ba waram pour ak Youssou Ndour ko wabe avorté mu jël santagne nga santagne dan ko Youssou Ndour daan ko après ci la ñëwaat daanan magal waaw loolu yëpp mën na nekk waaw mais moom gënuñu palmarès waaw moom bu dee ay da bu dee daa bëgg combat jàng moom nee na jàmbaar la day xanante moom day jël si mbabat yi waaw nañu sëgg combat yi neexi gars yi xam nañ ko de mais ñoom dañuy ñoom dañuy bëgg toog si plateau yi naan gars yi dañ leen daw ba pare di ut combat bu nooy xoolal xoolal fu mu jël kan la jël te mboromam nekk fi kan la jël dégg naa ñu am gul combat dégg naa ñu am na ko am na ñu ne jaruñu la jël waaye yow combat yi saf sàpp yi nekk fi booy Batista no ñëw bore bëre nga naan man nii booy dañ ñëw ñu bëre. waaw ñu gis ni ñu gis ni Batista tamit dañuy ñëw fii Batista the gun moog move picking. The gun bayal buy Batista da koy duy do one fees dellu be open press gis nañ fum tong ni, nii tong ni rek dawa fees sa digganteeg ko li nga wax rek si waa gox bi sa digganteeg Pikine. waaw mooy li ma la wax rek Pikine moom xoolal ñun mbooloo mooy doole quoi do dóorandoo wa dompat si sot la bokk quoi te man gars yi mau may sotal waxuma Pikine mais waa Kaolack nag sa combat ñu def ay bisu bisu bis ñëw fekk si waa Pikine waaw ñu ne ñoo bokk si làmb Fall ñu ne ñoo bokk si làmb te njàmbaar yi ñoo xam làmb yi xam nañu bari saan daanaan la mais gars yi dañu ma jàppale ma génn. sa diggante grand yi fii si Pikine ku si mel ni Eumeu Sène ku si mel ni Ama ku si mel ni tey ko yi wax rek Boy Niang. waaw ñoom sumay deret lañ waaw Pikine li ma la wax rek sumay deret lañ Eumeu Sène papaam ak sama maam ñu bokk ndey baay benn deret la ñoo bokk deret buy daw suñu yaram quoi waaw sama waay la suma lépp la waaw nga Pokola Zagop Prince Tas Yaakaar Ëmma xam nga booy Waranka booy Bébé Balla ñëpp ku lim juum Karbala mbër yëpp laa bàyyiwuma kenn. waaw ay ay maade bu sab ñoom ñëpp si Pikine gi lañ bokk. ñu gis ni ñu gis ni yéen génération bi yéen génération yu ndaw yi nekk Pikine ñoo gis yéen ñëpp da ngeen déggoo te benn dank ngeen gis ne ku ci xewle sax moroom ñëw toog la ma seen secret. waaw xol bu rafet la ñor si ñëpp Batista man ñi ma xam dëgg soo waxee dañ naan Batista xolam dara nekku si fii ñëpp am fulla fii koo fi jaay fulla mu bàyyi la fi nga am nii te ñun ay mbër lañ ñoo soxla nit a ubbi suñu suñu xol yi bien fait que ñun cœur ouvert lañ yor waaw sama papa koo xam xam ni sama papa jàmbaara borom xol ba rafet man mënu ma ñëw sama di lam ma fu ñu ma nuyoo si man nag waaw moo tax ma bëgg yoon bi gaaw ma teral ko ndax kenn xamul kañ la a la waaye lépp si biir nga xam sa yaay <laughs> gis nañ tey booy bëre ji da daw ñëw kort ko fóon ko doo ko génn sa diggante moom. suma yaay la waaw loolu moom war waaw loolu moom war de du ma sori de yow xaaral yow du. loolu la lool sa waay la lool. waaw sama waay la waaw li may wax rek ñun moom ah comme ñun ñu fi des ay yaay. da war a suñu yaay quoi waaw ñu profité profité suñu yaay bu baax loolu la am si lu may wax waaw. xam naa bu sori foofu mais damay ñëw sori fii gis nañ sa grand frère yi nekk biir Pikine jël nañ ay combat soog ay combat yu métti booy ñaa jël rëg rëg Ama Baldé jël ki nga xam ne mooy Franc coow li commencé dugg biir Pikine loolu mooy lamb ñun ñu ñoo opte mbër opte lamb lamb yàqal ñu bëri ñu bàyyi jàng xam nga bàyyi waaw ne lamb ñun waruñu combat bu nooy su combat bu nooy ko bëgg da ngay bàyyi moo tax ma ne la daa am combat jàng yoo xam ne mun taxawee da ngay xam ne lii combat ba pare di fës ñu leen waxal ñu ne ñoom ñooy ndaanaane te buñ jugee ëpp làmmin mbëri ba pare di jël ay pas nañ ko non non nañ ko wax ne dee làmb làmb yàqu na da nga jàpp ni say morom yi ay tàppel lañ làmb laa la wax boo gisoon mbër dëgg laa la wax gars yi dañ koy daw song si di ko doolu ay làmb yu xeere muy bëre fi booy bëree duñ làmb xeere xama bëre làmb yow làmb yow cinq dimanche xam nga ñëpp ñuy daan grand combat yi moo làmb bu xeere mbëri dañuy jël seen i mborom da ngay jël mbër bu jël pas daan ko jëlaat pas daan ko nekk si média yi di wax teg boppam champion jamono yi laa la wax jamono yi mbër bu bëgg laa la wax Gris 2 doomu dangu ku bëgg ñëpp ñu dem place Mali wala bu fekk si leen fu ñu dëgg may leen combat. day ku ko moom li ngay wax ni kan moo ko moom. ay tudduma turu kenn yow ah léegi ku ko seetaan da nga gis sa boobu. ah waaw man waaw. Bamba daa mel ni sa waay ñeewul. du ma tudd turu kenn wax kay wax kay day sol tubé. du ma tudd waaw loolu man ama après gars yi seetaan nii dañ xam Bada Sa lu muy wax lan la. saay mbëri yi xool fii sa mag si ba ñu bëree ba léegi bëriwul. xale nekk booy bu ndaw waaw ay waajuram yaakaar ko galas nekk jàmbaar ñëw di def ay di dóor di daan lamb léegi bëggadul loolu làmb bëggadul kuy dóor di daan. ba nga bëree boobu mooy gëj na bëri nañu wax ne dëgg. xool xool mbëru mbabat yi nekk ay man ñaar waaw. waaw moom booba léegi moom daanaka trois ans lay dugg nii bëriwul. soo mbabatee doo bëree. ku mel ne ay Lamine Petit Sélé ay ndaanaanu làmb laa la wax tournée mbabat boo dem fekk ko fa ay Sélé Mélé xam nga gars yëpp gaay yi dañ leen war di jël dañoo bokk si làmb ay fils de Balen waaw tas yaakaar yoon bi daa war a gaaw ñu dañoo war a laale gars yi dañoo war a dañoo bokk si lamb Petit Sélé daanaan la tournant day day lamb saison lumb mu teg ay nagam teg xaalisam te boo ko doon utal adversaire fii ba suba gaa yi duñ ko jël les gars ñoom ñu ne ay mbër lañ ñoom <laughs> fii mbër yi xamante nañ de. da nga mbër dëgg boo bëreetul. léegi mbër moom bëreetul wóor yàlla léegi yow utal ñu lay waxal si TikTok bi di la live di la yóoxul nga xool ay yow yow. moo yow ñu la yóoxul tamit. waaye yow man su ma yuuxoo kenn boo gars yi yuuxoo ba de sax kenn du la wuyu Modou Mbaye daa yuuxu bay bëgg a dee ba ma daanee Ibrahima Ngaabu lu mu yuuxu tam moo tax man sama naanaan si naanaan yooyu laa a wone pour gars yi man daa am ñoo xamante ne yow nga bëgg lu metti am na ñoo xam nañ ma am na ñoo xam ne des nañ ma xam gars yi ñu ngi may lamb man bu ma jugé si ay lamb man bu ñu ma jugé si samay combat melu ma noonu gën naa sadik noonu nga ne ma lan barki alxuraan lamb mën na ñëw nga teg loo xamante ne ne tamit i ka tapel bu mel ni Bamba Thiam du delloo avance bu ko delloo gëree bu mel nit Pa Maguette jël ma am am barki alxuraan gars yi na ñëw ñu bëree i nekkul tamit yow tamit badd bu ngay teg ak xattir bu ngay teg texul gars yi du delloo avance waa léegi góor bu demee bay ragal mburum góoram say wax na bàyyi papa barki yàlla man soo gisee samay interview may woo ay ay kii euh, nu mu tudd jëm ceer yi maa ngi wax de respect dama ko soo waxul kenn du jël caat li ma bëreeg moom li ma ko woo dem fekkoon euh, Mali ba di ko may man mel ma noonu de man maa gënoon noppi fii maa fi gën a yaru barki alxuraan mais lam moo deful si coow loolu doo si dugg bu ñu ma si jugé di bari saa dafa réew wala dara. non nit ku nekk maanaam yow tey su ma waxee bu de mën nga faral nii su loo ma wax yow yow di dina la arrangé mais bu dee faraloo ma lu ma wax di nga ma si jugé ne booy bi daa bëri wax booy bi day def lii def ma ko dara maa ngi jégalu bu baax dama ko def pour bokk si làmb parce ngi dem da bëri si bëriwul <laughs> président la arabtu ku li rek tey batis waxtaan bi neex na tey batis bu amoon loo xamante tey moom lañ ko war a laaj te laaj ñu ko lan lay doon ak batis lu tey lu ñu ma war a laaj ko mooy nan ba amoon lu question boo xam ne bëggoon nga ñu laaj la ko tey te laaj ñu la ko tey man sama wax leen la sama wax leen la mooy gaa yi nañ jëlante suñu biir man lu rek laa bëgg quoi waa xale yi ñu naan daanaan lañ mooy làmb ji bëri na ay ndaanaan de waaw ndaanaan nañ boole suñu biir wala ñu defa ñu kalaaf ñu xool kuy génn waaw surtout loolu kalaaf yi gasoo di joronga Batista yi ikaran bu ko bokkul jotul nga bokk si kalaaf yi comme que gars yi la si man maa si waroon dugg mais du sànq moo nekk Pikine moo tax bokkuma si kalaaf boobu noonu waaw dëggante naa si promoteur mënuma dur sànq bu génnoon ma dugal la mais dur sànq si nekkoon quoi kalaaf bu xeere boo nel benn jëlal Thiatou Walo nel Tony Junior jëlal ma ma caatu euh, caatu waaw muy 4 nga jël jam ceeri. jël général Malika dugal. Serigne Ndiaye na ñëw. waaw jël booy boobu dëkk parcelle. ba maa ko fi njëkk a tëq. kàlla góor maa ko fi njëkk a tëq kuy dóore. déedéet ku ku kii mujjee daan Belende. waaw Belende ba ma ko fi toog kan moo ko tëq. nii nii bàyyi ko ba may daan sama cinquième combat laa leen wax jox leen ma belante nii nii bàyyi ko waaye yow man damaa bàyyi benn na ñëw moom may kan man noonu la jógee nii ma lax man li ma wane nii ñu an naa daan dara

Ibra Ngabou ba ma koy daan di leen wax jox leen ma beleen ak njaay din kenn nangaw leen laaj cool yi mooy bëri mais gars yi xamante nañ barki alxuraan beneen ba ma koy laaj ak caatu yof kenn laajagu leen nañ ma leen jox moo ne sama ndaanaan bu den daanaan ngeen bëgg a gis non da ngeen gis Batiste bu bees taax ah. barki alxuraan instant làmb ji moo laajatul foo ko waa ñëw mën nañ xaar leen su Batiste lu ma bëgg saison mooy bëre trois combats quatre comme sama borom man gars bi ma jàppale nañ am ndaanaan nañ am champion danañ ma jàppale ko waa am naa jàppal bu baax na sama baba lu ma joxoon mu dagg waa Kaolack yi am ay Tafa Diop am ay Lat bu Pikine am Sadex ngi Zeus Galaay xam nga.